la su ma yegsee je vais j'ai trouvé le président Macky Sall déjà xamuñu état des lieux ils connaissent pas l'état des lieux parce qu'ils n'acceptent même pas de parler des réalisations donc balaa nga mën a wax que man à partir je vais construire parce que construit à partir de quelque chose mais quand tu refuses l'existence de la chose comment tu peux construire ça veut dire que vous n'avez pas de programme Je vous observe autant que vous êtes. Je ne vois pas un seul qui a un fichu de programme, un, une esquisse de programme. Ousmane Sonko est parti aux élections sans programme. loolu man maa leen ko garantir de quelqu'un qui est à l'intérieur Cheikh Sadibou ñaamar les ziar ba ma Cheikh Sadibou fi ba sonn façon bu ne mais damaa demul woon Sénégal amaguma woon kayit pour ñëw gis li président de la République def ba ma ñëwee teg ci sama bët ci laa del si ñëw taxaw nekk soldat ba parce que man Sénégal moo ma intéressé lu ñuy wax seen affaire la lijjantiwuma leen parce que Sénégal man ku ko yow ma ànd ak yow ba may ànd ak ñoom damaa foogoon ni ñoom ñoo bëgg Sénégal ba ma xamee ni bëgguñu Sénégal parce que boo bëggee Sénégal déjà da ngay bëgg nitam doomu Sénégal bu méritant da nga koy bëgg gën koo taxaw gën koo may doole samay page gis nga lii ñu def samay page rek won na leen ni que bëgguñu Sénégal man Sénégal lay xeexal man ma choisir président Macky Sall ba tey Sénégal laa bëgg Sénégal lay xeexal leer na leen ñoom mais ñu jël samay page jaw paradise ko saboté ko jël ay kii yàq page yi ñëw taxaw léegi nga ñooñu ngi ñu bëgg leen wax ni que ñoom dañoo bëgg Sénégal ils sont pas capables d'accepter une différence d'opinion ils sont pas capables d'accepter que le président Macky un fils de ce pays, a fait plus que qui que ce soit dans ce pays et que à partir de cela, ils doivent accepter ce qu'il a fait pour pouvoir mieux construire déjà au préalable. Il faut que tu connaisses les prérequis, tu connaisses l'état du terrain, la situation, fan la ñu toll et aucun d'entre eux n'a jamais posé un débat boo xam basé sur l'acquis, l'existant, le réalisé, le bilan. amoon ku ciy wax bilan président Macky Sall parce que ragal nañu sax bu ñu waxee bilan sénégalais ne leen ah bon kon te am na lu mu liggéey parce que dañoo wër di fen Macky liggéeyul Macky liggéeyul boo nekkee bitim réew nga jàpp ne Macky liggéeyul boo wàccee Sénégal mu mel ni dañ la yóbbu beneen dëkk ñu yóbbu la beneen réew ngay gis loo xam ne musoo xalaat ni mën na am Sénégal nga gis loo xam ne musoo xalaat ni ko doomu sénégalais mën na ko def léegi kooku doo leen ko ko nangul avec ça, vous voulez penser que ce pays-là, il n'y a que des oies sauvages qui ont le complexe de dire, vous dire non. Parce que nous avons un complexe pour avoir opposition. Non. Parce que nous avons opposition, nous avons comme di nous avons vous êtes corrompus, dañu leen jënd que ay caga ngeen que amu leen xam-xam rek ñooñu dañuy préférer ànd ak ñoom te fekk du conviction looloo tax bu élection jotee Ousmane Sonko musul gagné Ousmane Sonko li muy wax c'est une majorité fal factice musul am majorité parce que musul dem élection moom kese musul dem élection moom kese ba mu demee kii jot na la àndaloon deux mille dix-neuf il est arrivé troisième gis nga Ousmane Sonko man dama ko teel a ajji dama ko teel a nand gis nga deux mille dix-sept laa ne kii dese na waaye dafa ñëw élection jot ñëpp def coalition moom mu rocceeku ne moom deful woon coalition pour pour politique pour pour pour élection parce que jamono yooyu ci la Ousmane Sonko ëppoon code yéen da ngeen di fàttali ni jamono yi nga xam ne Ousmane Sonko ci la ëppoon code ba mu demee élection le plus fort reste la am maanaam Macky Sall moo ko sarax ci baaxaayam ak ci yaatoom Macky Sall moo permettre que moom mu fawtaatoo la fa ndongo yi bàyyi doon li ñu doon bàyyil ndongo yi la am ci assemblée bi moom culum moo dem. te jamono yooyu la gënoon a nekk ci diggu dooleem jamono yooyu lay génne ay dossier di fenal président di fenal Mamour Diallo di fenal képp koo xam ne nekkoon nga ci kanamam Assane Ka si le président a travaillé bien sûr mais sunu xaalis lañu ko jox daa war a jox c'est ce qui normal yow yaa ngi fay say impôt yaa ngi amee sama xaalis te xam naa ne doo koy fay xam nga lii xam nga yéen seen xam nga xam nga c'est ça c'est ça la bêtise sénégalaise mais am na ñu ñu jox xaalisu réew mi te duñu liggéey y a des leur paie ils mettent leur xaftaan dans le bureau ils s'en vont traîner à gauche et à droite te da leen di fay yow yow est-ce que bokkoo ci ñooñu président lan moo ko obligé muy tëdd digg xaaju guddi di yeewu fajar danga foog ni yow danga danga ko daf la ko ameel yow Assane Ka danga foog ni yow président daf la ameel ni muy li de travail bi mu am nii di tëdd xaaju guddi di yeewu fajar tax Sénégal di tukki di wër àddina bi tukki nu mu méttee avion bu jógee day left gauche droite fu ne mu dugg fa pour Sénégal nga foog ni il obligé contrat am ko dañ ko bindal loolu Assane damay laaj xoolal gis nga wax nga président bi je te retourne li nga wax président président de la république nga nga xaw a remettre en cause li may wax yow ma ki la nga ne bàyyi tooñ tooñ baaxul donc da nga tooñ président de la république vous voyez comment vous êtes ni ngeen da ngeen ñemee te ñemewu leen encaissé dañoo ñeme dóor te ñemewuñu encaissé loolu moo ma jaaxal ci waa euh, mbokki euh, Ousmane Sonko yi waa kër Ousmane Sonko nañu ñemee tooñ noonu lañu ragalee ku leen laal mais dama la delloo plus ou moins lii nga wax président et tu ne peux pas supporter ça je vous connais trop naa ne que je te retourne ça léegi ci ngay comprendre parce que yéen vous ne doo leen considérer keneen ki comme nit vous n'avez pas la faculté de considérer l'autre comme un être fait de chair et de sang comme yéen yéen nit ñi da nga leen di considérer comme des objets da ngeen balaa man li ma choqué mooy balaa ngeen réaliser li ngeen di def ñu delloo leen ko c'est exactement ce qui est en train de se passer donc ma yëgale jamono yu ñu toll nii pour que live bi nag bañ a gudd mënatu leen wax ni président ci Sall amul xam-xam il a archi prouvé leen wax ni que président Macky Sall liggéeyul te loolu moo doon seen cheval de bataille amu leen xam-xam yéen liggéeyu leen bii laaxi amu leen xam-xam parce que ñette gën a diplômé ñette gën a am parcours yu extraordinaire amuñu compétence amuñu capacité fexe Sénégal yi bëgg leen avec aujourd'hui tous les instruments dont on dispose pour communiquer pour approcher les populations y a vous n'avez pas la faculté de vous faire aimer et accepter les Sénégalais pour l'essentiel moo Pour l'essentiel, les bureaucrates, ceux qui ont des diplômes, qui ont tout le parcours académique, professionnel, ils sont obligés d'aller se ranger derrière un quetard. Excusez-moi du terme. Un quetard. Écute. Abruti. Négligent. Négligé ba négligé boppam. négligé ba négligé carrière am négligé ba négligé le soi-disant projet bañ ko dégg projet bi taxoon mu demoon Casamance di ànd ak Atout di wuti terrain terrain pour palais le futur palais yéen dof yi ngeen topp ci di wundang wundang naan da ngeen da di koy da ngeen c'est votre sauveur sauveur de quoi xanaa de ceux qui savent pas ceux qui xanaa ñuy les eunuques sauveur des eunuques wala ñu yoob bu fekkee ni programme pour. tëggee xale yi kuy ku leen di dimbale wan leen loo leen di yollee koo fajal de euh, xaaju guddi dem ci salon de massage di tëddee xale yi mun ngeen ko fal bu fekkee ne Sénégal loolu la soxla mais amul leneen lu mu mën la preuve il ne sait même pas s'exprimer dans la langue officielle boobu di benn te manque de négligence boobu moo tax ba on en est aujourd'hui de 2014 à aujourd'hui ça presque dix ans qu'il a exprimé son envie de diriger le Sénégal pendant dix ans il n'a pas été capable d'aller apprendre le français yow xam nga ni que langue bi mooy langue officielle bi bu ñu lay defal interview sur le plan international langue boobu la ñuy utiliser xanaa doo wax ni que léegi yow ay fii ak France 24 yi nga dem dañ la war a interviewer en joola wala en wolof avec un traducteur t'es même pas fichu d'aller ne serait-ce online de tap de de t'évertuer à parler le français de manière fluide de manière correcte avec un niveau acceptable du yow du sa xarit sa sa sa sa affaire bagage boobu ak ba ñoom ñu tegloo ni man Mais man, au moins, c'est propre. J'ai Qui n'est pas capable de s'occuper de son hygiène dentaire, comment tu vas t'occuper de Sénégalais Bon, vous êtes allés nous foutre la honte sur France 24, médias internationaux, avec vos France, votre français de, de pays sénégalais. Quand vous parlez, on pense que c'est un pays qu'on a ressuscité wala da ngeen dekki doon xam nga loolu ñu doon wax dex dafa benn maam maamos pay yi ñoo dellusiwaat ci yéen ñëw taxaw ay France 24 di làkk un français chaotique un français de merde un français boo xam ne boo koy déglu da ngay bëgg da bëgg rek di doo di pes sa bopp quoi c'est pour vous dire vos lacunes incommensurables à dire votre mala votre jalousie maladive jusqu'à présent gisuma fi ngeen taxawee wax sénégalais que lii la ñuy def lii mooy suñu programme lii mooy suñu y en a pas dernières élections Pastef amul woon programme livre boobu naan solution c'est ça qu'il essaie d'arnaquer avec ça lay essaie arnaquer l'opinion nationale et internationale comme si il avait des idées mais ça c'est un ramassis de vœux pieux un chapelet de vœux pieux man Françoise ma toog ne fu ma fi kii Sëriñ Mbàkke bu ma fi tolloo yow sa boutique bi dinaa ko def tabaxal la ko defal la ko mu nekk euh, cinq étages bu ko defee yow nga def ascenseur bi nekk ci kanam euh, nit ñi mais su ma la ko waxee xaw ma fa nga dëkk xaw ma nu mu mel xaw ma bâtiment bi nga yow sa atelier bi nu mu toll xaw ma ñan ñaata nit a fa dëkk nan laa la waxee di ni mun a defarale man à partir d'ici ma defal la programme defal la plan c'est ce que Ousmane Sonko a fait Tout ce qu'il a proposé, c'est sans véritable connaissance mesurable, quantitative ou qualitative de ce qu'est la réalité socio-économique sénégalaise. C'est man rek ma toog rek di di naan sama naan sama bisaab ba sama xol sedd rek ma commencé di tàllal loolu la def mais loolu yëpp c'est pour tromper les Sénégalais parce que moom intention am nekkul mu liggéeyal leen mais intention mooy nax leen neex leen ba jot ci li mu soxla mën a enrichir wu parce que ñaari yëf a ko intéressé ne ci àddina ñoo ko mës a muy jigéen paix ak xaalis ñaari bagage yooyu ma lay wax nii xaalis ak jigéen ñoo ko intéressé Sénégal intéressé wu te gëmuñu Sénégal ndax man niñ ma def man ci réseau sociaux yi kese won na leen ni que gëmuñu Sénégal samay page page nit daf ciy liggéey pendant des années def ci effort am def ci ay moyens def ci connaissance am ba mu nekk mu am doole télé ngeen jël ko ut seeni technicien yàq ko parce que kooku li muy wax arrangé wu leen ngeen bëgg wax ne yéen bëgg ngeen Sénégal bëggu leen Sénégal jouissances yi les jouissances qui vont avec le post avec euh, les jouissances qui vont avec la pratique du pouvoir c'est ça que vous recherchez loolu ngeen soxla vous avez juste besoin de jouissance la preuve Ousmane Sonko avec li ngay prôné li ngay prôné waroo woon am ay auto de luxe ñaata auto de luxe nga garé sa kër Ousmane Sonko yow liggéey depuis des années sa business bi nee nga euh, faillite na parce que état bi mooy joxe mooy joxe contrat te yow dangay nekkoo ak euh, dangay am problème ak état. déjà ba ngay tabax yow ba ngay génn fonction publique di tabax sa entreprise xam nga ni tu es contre l'État donc loolu mooy sa négligence xaalis ba ngay investir foofu te nga xam ne ñii nga war a liggéeyal duñu la jox contrat pourquoi loolu mooy le manque d'intelligence la négligence le manque de rigueur bi nga xam ne moo la caractériser ba tax ba ma ne yow munoo nekk kandi président depuis le début parce que mëtoo kilifa mëtoo njiit bonsoir Pérédo Koyte Mamadou, mon frère, Manglésia. Le gars, il est carent. Il est d'une carence. Sa carence, mon man, que frappé. Ak sa ñak degou. Mané ki, balé nit ñi di découvrir, fekk man découvrir dans le botek, né ki bon xalatuma sax jëlé ko. ba mu naan mooy sama njiit man du n'importe qui moo may jiite parce que ni may gis ni xel moomoo sama xel dafay dem bien des années en avance par rapport ak ñenn yu bari j'ai pas besoin de sortir de chez pour travailler soxluma am yenn yenn coono yi